Stevie. benn waxtu ci première chaîne de télé privée bu Sénégal yem waxtu xibaar yi nes ñu di kenn ci li ci gën a fës bokk ci li gën a fës ci xibaar yi mbas mi tolluwaay ak feebar bi lu tolloog téeméer ak juróom fukk ak ñaar ci ay cas yu yees lañu amee ni ki tey ci samedi gi téeméer ak euh, juróom ñaar ci doomi aadama yu ko amee woon wér nañu ni ki démb ci aljuma ji nag ñeen ci doomi aadama ñàkk nañu ci seen bakken daanu ko topp ci biir xibaar yi ànd ci ak ki ñu denk wàllu prévention ñu daal di jeexal état de catastrophe sanitaire ak it couvre-feu bi nga xam ne daal di nañ ko woon décrété ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier bi ñu génn ci Ndakaaru ak euh, Thiès muy mbir mu mu nga xam ne nag njeex na ci vendredi bi minuit jotee ba tax na daal dem géeg dikk gi ci ñaari euh, région yooyee dana daal di ñoŋaat lu jëm ci xibaar bu neex bu nga xam ne yegg si na ci tañeer gi fukki joueur ak ñaar yi nga xam ne nag dañ ne woon duñu bokk ci sélection bi daanu mujj ñëw xibaar bu tukkee ci ministère bu ñu denk lépp lu jëm ci wàllu tàggat yaram sax ci réewu France mi ngi ak mbokk yi rafetlu baax seen ànd ak ñun rawatina di taataan xibaar yi file ci première chaîne de télé privée bu Sénégal xibaar ñu koy door ak woon wax nag ci lu jëm eh, ci mbas mi ak tolluwaay wi ni ñu koy defee suba si jot ci màkkaanub joriñ ji ñu dànk lépp lu jëm ci wàllu wér gu ñu daal di fësal niki tey lu tolloog téeméer eh, juróom fukk ak ñaar ci ay yi nga xam ne amee nanu eh, bi lépp feebar ña ca wér seenub mi ngi toll ci téeméer ak juróom-ñaar ci ay doomu ñi nga xam ne nag mbir ma lottal na leen fanweer ak ñaar lanu niki dem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 ñoo nekk réanimation ñeent malade ñàkk seen bakkan bu su démb ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñeent ak ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-ñett wér nañ si junni ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi ak ci malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi bi campagne vaccination bi dooree ba léegi ñu jot ñàkk ñu ngi toll ci téeméer ak juróom fukk téeméer ak juróom fukki junni ak juróom-ñetti téeméer yu teg juróom fukk ak juróom ñaar mi ngi ko ñu wutali diwaanub Sédhiou foofee nag ca IEF ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa fare ji kilifa yi daal dina ñuy kon uh, jotaat ay loowub uh, masque ak it lu jëm uh, ci yenn ci mbir yu ci mel ni ay produits hygiène loolu lépp nag ngir fàggu ci mbas mi ak law gi ci biir l'école yi loolu nag jàpp nañu ne faw rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di doomu aadama yi gën a farlu rawatina nag ci jamono ji nga xam ne dañu yëkkati état d'urgence wala boog lu jëm ci li nga xam ne moom moo di état d'urgence euh, état de catastrophe euh, sanitaire bi nga xam ne daal dinay dakk niki aljuma gile ca diwaanub Sédhiou Robert Diandi mbas mi di wéye di law ci biir réew mi ak bakkan yi nga xam ne mu ngi koy faat jaaxal na lool kilifa yi ñu dénk wàllu njàng meeg njàngale mi ci biir département wu Sédhiou gannaaw nag benn woote bi nga xam ne amaloon nañ ko bi ñuy tijji l'école bi ONG Enfance et Paix ñëw na rek jàppale leen ci ay jumtukaay ngir rek mën a aar ndongo ci jàngoroy Covid 19. mën a jox ay masques mën a jox savon liquide mën a jox gel ak des flyers de sensibilisation aussi pour que xale yi tout le temps bu ñu gisee flyer bi mun mën nañu rappeler tout le temps les mesures barrières parce que xam nañu ne feebar bi mu ngi fi kañ lay dem kenn xamu ko kenn mënul ne euh, feebar bi tel euh, période lañ lay lay quitté mais aussi feebar bi aussi mun na yenn saay mu am yeneen euh, yeneen melokaan yi muy jël. te melokaan yooyu leen lenn saay mun na nekk beaucoup plus virulente que beneen melokaan bu mu amoon. waaye donte sax njiitu réew mi jël na ndogal dalee ko tey teggi li nga xam ne moom lañ doon woowee état d'urgence sanitaire kilifay lekkool yi ñoom jàpp ne faw rek ñu wéy di sàmmoo ko tettali waa kër docteur ngir rek moytu mbas mi di wéy di law ci biir dëkk bi. même bu dee nguur gi jël na euh, décision lever état d'urgence je pense que tant que maladie bi mu ngi fi ñun amuñu choix quoi dañoo war a continuer xeex mi. donc du ñu toog croiser les bra bàyyi li initiative yu ñu jëloon euh, tant que feebar baa ngi fi donc je pense que dañuy continuer xeex bi ba daaneel carrément donc euh, lii di feebar bi. loolu yëpp a tax nag ba waa ONG Enfants CP fas yéene woyal yeete gi ñuy amal jëmale ko ci askan wi ci ay émission yu nar a amal ci rajo yi waaye itam di waxtaan ak askan wi ci biir village yi. Robert Diagne ñu gërëm ko mbokk yi ni ñu ko waxee rek état de catastrophe sanitaire googe nga xam ne nag ñu ngi ko tëraloon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier gi ñu weesu ci Dakar ak Thiès daal di nañu ko yëkkati ci àljuma ji ci zéro heure bi mu jotee loole nag mi ngi duggoon ci li nga xam ne moom la njiitu réew mi jëloon ci dogal ngir rek pàgg fàggandiku ak moytu law lii di Covid 19 ndax nag njeexital yañ ca bëggoon am nañu ko am déet dañuy déglu rek xam ne moom la xam-xamam màcc jëm ci wàllub santé piblique ci biir reportage bu Xadisatu Ba état bu catastrophe sanitaire bi nguur gi décrété woon ñaari fukkeelu fan ak ñaar ci weerum janvier ci bërëbu Dakar ak i Thiès nag daal di ne jeex ni ci démb mu doon nag ab ndogal bu taxul benn yoon wàllante mbas bi daal di wàññeeku bu ñu sukkandikoo ci spécialiste bi lii. couvre-feu bi nga xamante ne bi nguur gi jëloon na ko. Euh, dañ ko tuddee couvre-feu mais soo xoolee bu baax confinement la danoo bañ danoo bañ a tudd tur bi rek mais confinement la boo xamante ni bi guddi gi ko doon def maanaam da doon dem ci neuf heures ba cinq heures du matin euh, ci cëppaandal ga nag wala sax nga xool bi nga xamante ne bi nu ngi nekkoon ci couvre-feu bi euh, cas communautaire yi dafa yéegoon ba jéggi doyo Euh, cas communautaires yi ñoo ëppoon sax lu ñu tuddee les cas contacts xool également courbe des décès maanaam ñi euh, nga xamante ni génn nañ ci àdduna euh, dafa yokk ba jéggi doyal soo xoolee sax démb rek weesu nañ junni doomu aadama yoo xamante ni génn nañ àdduna ba loolu ñuy tuddee taux de létalité bi nga xamante ni bi gis nañ ko ci deuxième période bi moo weesu wala sut fu sori la nga xamante ni bi moo nekkoon courbe de létalité ou deuxième vague bi. ci loolu nag état d'urgence bi àndaloon ak couvre-feu 21 ba 5h ci fajar daal di nay amoon ci bërëb yi nga xamante ni nag foofu moo gën a bëri lii di wàllante mbas mi di coronavirus ba tey nag kii di docteur Ba di xam xamle ni rek njeexum lii di couvre-feu bi yoon la ndaxte indiwul benn saafara ci mbas mi lee. Euh, mois de décembre ba léegi nag feebar bi taxawul euh, ñi nga xamante ni également doomu aadama yi génn àdduna également. danoo gën a yokk donc ci jeexatal ba dañuy naan rek couvre-feu bi amul woon benn njëriñ wala sax nu ne rek couvre-feu dafa nekkoon mesure boo xamante ni dafa gën a aggraver la situation euh, mesure la boo xam ne bii kenn waru ko jël su fekkoonte ni gëstu woon nañ ko borom xam-xam yi yoroon nañ ko euh, dañuy xam ne rek couvre-feu période boobu nu ko jëloon du couvre-feu bi moo nekkoon euh, solution bi mais waroon xool yeneen anam. pour euh, seet naka la ñuy wàññee feebar bi. bépp ndogal bi nguur gi jëloon ngir xeex wàllante mbas mi di Covid 19 rawatina nag lii di couvre-feu bi daal di na jeex niki ajuma ji ci loolu nag couvre-feu bi ñu daal di woon teg rek diggante ñaari région yi daal di nañ koy ajji niki démb lii di situation bi nag daal di dellu rekk ni mu meloon réewum Sénégal nag daal di nay wees lu ëpp junni ñu ñàkk seeni bakkan ci mbas mi lii waaye nag wàllante mbas mi mi ngi gën a wàññeeku yi weesu. Xadisatu Ba ñu gërëm ko mbokk yi leneen ci wàllub euh, xibaar wutali diwaanub euh, Sédhiou wax ci wàllum njàng ak jàngale ndax euh, kuréelu jàngalekat yi nga xam ne dañoo bootu ci G7 dañoo mer ba futtu nag jëmale ci autorité yi di sàkku rek ñu daal di teggi loxo seen naataango bi di wuyoo ci turu Lamine Badji nekk nag professeur espagnol jàpp nañu sax mooy benn professeur espagnol bu nekk ci lycée bu Bona nga xam ne nag ñu ngi ko jàppoon ginnaaw ay manifestations yi ñeel koy denc ca kaso bu Ziguinchor ñoom jàngalekat eh, ci fare ci G7 nag lañu gis rek mooy dafay gàllankoor bu baax a baax li di njàngum eh, gone yi di sàkku rek ñu daal di koy bàyyi mu feex ñu teewlu ci ki yoroon seenub eh, kàddu Bernabé Diémé lay wuyoo ci micro Robert Diandi ñu ngi métti lu tam suñu camarade Lamine Badji bu nekk lycée Bonn moom rek la mooy professeur espagnol ci établissement boobu élèves yaa ngi toog di ko xaar fu mu toll nii ñu ngi ko jàpp depuis un mois Ziguinchor ñu ngi koy métti bu baax te xam nañu foofu du place du place u kenn waaye li nga xamante ne moo waral ñu jàpp ko jàpp naa ni war nañ ko mën a teg ci suuf parce que fu mu toll nii ñu ngi ñaan daal ñëpp a ngi ñaan dal ci dëkk ci ci Sénégal bi sëriñ yi ñaan nañu autorité administrative ñaan nañu ñëpp ngi xaar daal donc ñun ci dal boobu la ñuy wéy ñu ngi ñaan nag ñi nga xamante ne ñoo ko téye fu mu toll nii nañu baral seen loxo ñu xool nuñ koy bàyyi ba mu dellu ci élève mi parce que ñooñu soxla nañ ko fu mu toll nii donc ñu ngi artu nag ñu bañ suba béy wéy mbuus parce que suñ koo bàyyil ci diggante bi ah ñun tam ñu mun a toog ñuy xool suñu collègue bi mu nekk ci prison lu yàgg ci li ci li nga xamante ne vraiment du du du lu grave noonu ñu ngi bàyyi moromoom mi donc moom aussi dañ ko war a bàyyi mi ngoog manifestation yooyee jotoon fi xew uh, ayu bés la ñu weesu ki ci àddu moo di Matar Ba nekk maire bu Fatick ak it joriñ ñu denk lépp lu jëm uh, ci wàllub uh, tàggat yaram ñaawlu na ko bu baax nag diwoo ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo bootu ci kujjeg politique gi ñu gën a ànd ak dal ba noppi nag di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal parti ñu daal de noppi ci yenn ci pëccoxo yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci réew mi mataax Ba ay kàddu yu nga xam ne denk na ko suñu naataangu du Diop ak Mohamed Thiombane réew mi fatik dañuy ñaanal chaque weer doomu Fatick yëpp waaye ñaan gi dañ ko jagleel président Macky Sall ko sénégalais yëpp parce que réew bu demee ba am lu ci bokkul dugg ci ñi gëm yàlla dañu war a dellu ci diine waaye lii am bi passé même bu dul mbiri politique ay politique a ko jiite te ci mbir moo xamante ne ci ñaari nit la yoo xamante ne seen mbiru bopp la même ku usman Ousmane Sonko sonalul kenn Ousmane Sonko problème am lay réglé mais du ñun lay sonal ñun li ñu war a sonal warul nekk biri politique mooy askan wi li leen li leen soxal moo ñu war a sonal loolu mooy politique donc limiter les choses ci Ousmane Sonko moi je le ferai pas moi je parle à la classe politique te ñun ci lañ bokk ñun ñun ñi nekk ci pouvoir bi ci classe politique bi lañ bokk président kenn du ko ne dàqal parce que président buy tànn kenn du ko ne tànnal président lañ gunge man du ma wax lu mu war a dàq dama wax li ñu war a def ñun dama ne président de la képp ku koy gunge nga yor ndomba tànk wala nga ñàkk koo yor ci famille bi nga bokk ngay njëkkee bul saaga bul xas bul xeex bul xuloo ñun ñi ànd ak moom waruñoo tal di xeex suñu biir dañ ko war a gunge mu am dal protéger ko mu am dal sensibiliser ko population bi mu ñu xam li muy def loolu la ñu def. ci xëyit nemmeeku ca diwaanub Gambie foofee nag ay euh, euh, jàmmaarloo dox ci diggante ay nappkat yi nga xam ne ñoom ñoo fa far ak it euh, ay sénégalais ginnaaw génnuk àdduna kenn ku nga xam ne doomu Gambie la nekkoon nappkat ca foofa doon wuyoo ci tuuru Jibril Cissé boobaak léegi nag xeexoo ba ma ngay woy ca boobu lépp dëkk yeneen i leeral ñu ànd ceeg Fatima gannaaw ba ñu reyee ab nappkatu gambien bii di wuyoo ci Jibril Cissé jiiñ ko ab sénégalais loolee indi ay coow yu rëy foofee ca Sayang Kombo Sud loolu nag jural ab gàllankoor nappkat sénégalais yi fa féete kii di Ousmane Ndiaye kenn si ñoom mi ngi koy ñawlu man ça fait 36 ans Euh, depuis quatre en cinq laa fi ñëw euh, ñun nag fi ñu nekkoon ñoom ñun suñu place yi dañ taal man mii di wax ak yéen dañ taal suma gaal suma euh, suma machine taal suma machine mag saal suma machine jërbaat ak yeneen ak yeneen de quarante et un machine machine quarante et un plus ou quarante cinq loolu si xayma loolu la ñu fa taal ay machine gaal gaal moom taal nañ si douze gars yi dañuy xayma douze au quatorze mu dégâts matériel moom mënuñu wax ñaata la ay centaine de millions lañ fa taal ay centaine de millions centaine de millions ci loolee nag nappkat yi ñoo ngi ñaan état bi ndimbal ndax ñu mën a delluwaat ci seeni liggéey. rek la ñuy xaar ndimbal rek moo ñu parce que ku amatul loo liggéey ku la dimbal rek ngay ngay xaar ku la ku amatul ku la loo liggéey moom ku la dimbal rek ngay bëgg parce que ñun dañu ñëw fii pour daan doole waaw bëri nañ fi trop bëri nañ fi trop parce que fi ñu nekk nii plus de deux cent et quelques personnes ñoo fi nekk waaw am na ci am na ñu fa des am na ñu dem yeneen dëkk. mais ñun ñoom ñi nga xamante ñu ngi ci loxo ñu ngi ci loxo Gambien yi plus de cent soixante et quelque la ñu. Sénégalais yi nag dañoo daal di woon regroupé wu rek ci confession wu chef de village bi fa nekk suñu sukkandikoo ci Ousmane Ndiaye waaye autorité consulaire yu sénégalais yi ñoo ngi saytu mbir mi ni mu waree. mi ngoog dellu si file ci ndakaaru daal di wax nag ci xëyum ndaw yi nga xam ne fan yëpp ma ngay wëy di doon napp uh, waxtaan ngir saafara daal di cay uh, am ci diwaanub uh, Kolda nag la nga xam ne moom la kilifa yi gis mooy faw ndaw yi dellu ci wàllub napp ak li nga xamante ne moom moo jëm ci sàmm gi ak mbay mi bu ñu bëggee kon rëcc ci yooyu le mbir Mbokar Kande reportage. mbéy bu demee ba jafe ci ki koy def daanaka da koy yóbbee ci gëdd. mooy lu ñu nemmeeku tey jii ci ñu bëri. am nañu suuf am nañu ndox mais li desoon li des mooy lan mooy ñu améliorer système bi ñu def ba mu am ay ñu motoriser ko ñu am ay engins agricoles. Oumy Sène nekk ci ferme fii nii ñu ngi ci département bu Vélingara niñ ko gisee ca Kolda ak Médina ferme yi ñu ngi gën di bëri mu nekk nag opportunité ci amal xëy ya waaye ñu gis na nag ñi ciy yëngu. dañu war a gën a xarañ. te ku wax Kolda xam ne euh, fukki weer si juróom si fukki weer ak ñaar am nañu am nañu naaj am pagaay naaj naaj boobu nañ ko jéem a exploité. ñu jàppale si xale yi ñu am ay panneaux solaires ñu liggéey si énergie solaire ndax moom mooy mooy mujjantal développement bi. Euh, état bu fekkee joxe da ay intrant aussi matériel bi nga xam ni war na ci war nañ ciy jàpp bu fekkee yore nga sa tool aussi di ci bay def sa goutte à goutte wala installation solaire nga xam ni dootoo sonnati ci wàllu wutu ndox dootoo sonnati ci wàllu mbay. agriculture bu moo na maanaam mbay mu ànd ak jamono. am na exigence tey jii yu bëri yu mu laaj GIZ ak GFA di ci gunge askan wi rawatina nag ci ni ñu leen di yombalalee am ndox. léegi mbay mi dafa war a sukkandiku ci machine yi dafa war a sukkandiku ci moteur yi war a sukkandiku tamit ci xarala yu bees yi muy maanaam énergie solaire ci jant bi jox ñu courant jox ñu courant ba nga xam ne ni dootoo mën a ngacc di yore say teen ak yu demee noonu léegi day pompe daal di lay jox ndox. Euh, système d'irrigation boo xam ne da ngay installer ay panneaux ay système de goutte à boole kook maraîchage bi nga boole ko ñaar yooyu yëpp ci benn formation ndaw mi mën a xam ne moom kat kon ci biir métier agriculture du rek. Euh, bay euh, sëgg sëgg rek liggéey suuf si am na yeneen métier yoo xam ne ni euh, nekk nañ ci wet gi. mbéy ak càmm mooy reenu koom-koomu diwaan bu Kolda kenn mënu koo weddi ñu gis ne tey ji ndaw ñi dañ ciy gën a soobu waaye mooy manqué na bokk na ci lii suqali secteur boobu ñu tàggat ndaw ñi coopération allemande GIZ daal di ci gunge lu toll ci téeméer ak ñaari fukk ci ñooñu le li mu ngi ko leneen ci wàllub euh, xibaar jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu denk lépp lu jëm ci wàllub tourisme ak transport euh, euh, aérien moom nag ma nga woon ca diwaanub ndax ci ngir saytu liggéey wa ñuy amal ca aéroport ba nu fay tabax la mu gis nag mooy xelam dal na ci liggéey wa nga xam ne nu ngi ko fay def boobee mbir sax koppar ñu ca def mi ngi toll ci ñaar fukk ak ñetti milliards ci sunuy koppar moom Alioune Sarr gis ni nag mbir mu nga xam ne la bu yembe mbir bu moderne Alioune Sarr kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dénk na ko kii di Moussa Ousmane Diagne ak Abdou Boye liggéey bi nga xam ne moom lañu dëgmal fii ci aéroport Ndar te su ko yàlla dogal jàmm fii at bi di jeex incha allah aéroport bi nañ ko jëbal population Ndar jëbal ko waa Sénégal aéroport Ndar nag dafa bokk ci juróomi aéroport yi nga xam ne njiitu réew mi le président Macky da ko fas yéene tabax ci Sénégal ci wetu aéroport Ndar am na aéroport Ourossogui Matam aéroport Ziguinchor aéroport Tambacounda ak bu Kédougou yooyu mooy juróomi aéroport yu njëkk bu Ndar ak bu Ourossogui ñoo tàmbale te incha allah ci at bi di jeex ñoom ñaar nañ mën a jébbal askan bi bu ñu jógee ci ñaar yooyu dem ci ñett yi ci topp muy Tambacounda Kédougou ak Ziguinchor njiitu réew mi yemul foofu ndax am na beneen dogal bu mu jël muy tabax yeneen juróom-ñetti aéroport yoo xam na ci la Kolda bokk ci la Cap bokk ci la Podor Bakel Siminti Linguère yëpp nag aéroport yoo xam ne li tax njiitu réew mi le président Macky Sall indi ko mooy fexe ba waa senegal mën dem beeg dikk bi gën a yomb ndax ay la yowén jaaduwul nga nekk biir senegal boo waree jóge Ndakaaru dem Matam ngay def juróom-ñaari waxtu ba juróom-benn waxtu ci oto loolu lañ ko dépassé amatul benn réew moo xam ne di nga def juróom ñaari waxtu ci biir réew mi pour dem ci région ak région mi ngoog mu nekkoon ay kàddu ak Alioune Sarr doon jëw di ñu denk wàllub tourisme ak euh, transport euh, aérien mbokk yi ñu tab bi ci wàllub tàggat yaram ci biir xibaar yi ak ni ñu ko junjee woon ci bopp bi wax nag ci euh, joueur sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci Ligue 1 ak Ligue bu France ñoom nag danañu mën a ñëw kon ci lii di sélection bi loole di xibaar bu tukkee ci ministère bi ñu denk lépp lu jëm ci wàllub tàggat yaram ci réewum France ni ko fédération sénégalaise de football bëggee woon ndax nag càkkutee foofu Palioune Cissé moo doonoon rek ñu ñëw waaye daal ba ñu jibalee boobu lépp xibaar la ñu wax ni rek lu tollook euh, fukk ak ñaar ci ay joueurs ci nga xam ne convoqué woon nañu leen dunu mën a ñëw ci ñaar fukk ak juróom-benn ya war a jongante ci seen diggante ak Congo ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weerub mars fële ca Brazzaville ak fan fanweeri fan ci weerub mars ñu war a daje ak Eswatini loole nag war nekk file ci diwaanub Thiès ca stade la Dior mbir mu ni mel nag bokk ci euh, éliminatoire bu Coupe d'Afrique de nation waaye ca mujjantal gi daal jàpp leen ni joueur yooyee euh, nu wuyu si ci convocation bu Aliou Cissé ginnaaw euh, bi nga xam ne nag ñii di kilifa yi bokk ci fédération sénégalaise de foot daal dinañ ci ci amalay jéego daan ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ci yeneen jotaay xibaar ñu des mbokk yi ci wàllu tàggat yaram ba tey wax nag ci lajj nga xam ne danu ko aaye ñaari euh, club yi lee mu di génération foot mu jël ñetteel am lu tolloog fukk ak juróom-ñett ci ay poñ ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fari ci AS Douane mi am fukk ak juróom ci ay euh, poñ ñoom nag ñoo war a euh, daje fële ca Déni Biram Ndaw foofe nga xamante ne nag war nañu fa kon xëccoo lu jëm ci Ligue 1 bi rawatina ci fukk ak benn lup journée bi yeneen i leer leeral ñu ànd ceeg Fatima Tall ab as douane nag nekkoon sacré ci atu 2015 ak at yi weesu yëpp mu doon bête noire génération foot waaye duel boobee dina nekk match bu ubbeeku rek ci diggante ñaari formation yooyu ñaari équipe yi am benn progression linéaire daanaka ba championnat bi tàmbalee ba tey ci at yi weesu yëpp as douane nag di am constamment génération foot mën na nekk benn ascendant bu psychologique ci douanier yi ci kaw génération foot ci 26e ak dernière journée bu saison 2018 2019 nag ci issue boobu nag génération foot moo nekk kon sacré ci kaw AS Douane mi nga xamante ni dafa daal di woon réussir AS Douane nag réussiroon na rek infligé ko lii di defetam waaye ci saison bi ci topp 2019 2020 ñu daal di koy annulé AS Douane nag daal di lem lii di génération foot fële ca deni match bi nag mi ngi jeexee woon ci deux buts à zéro ci quatrième journée bi nag ci plan wu jeu bi nag génération foot daal di soppeeku ñoom nag am nañ benn possession de balle waaye AS Douanes nag mi ngi varié ci jëwam ak ay attaques yi nga xamante ni dañ ko placé ak tamit lu ci mel ni ay attaques rapides. mi ngoog muy match bi nga xam ne wax na dox ci seen euh, diggante ni ki dimanche gi ñu euh, dëgmal maanaam euh, ëllëg mbokk yi ñu gërëm leen ci topp gi fii la ñuy ndax keppe xibaar yi jaajëfal ñi ci jàpp ba mu yemb yeneen jotaay ak la rédaction incha allah 19h ak 20h waaye laata loolu ñu bàyyi leen ngeen woy ak sunu ay programme jaa ngeen